man loolu moom ay yara man c'est ay choix politique la peut ñoom ñoo xam ni ñu tojee seen bopp ji nax quoi tu vois ce que je veux dire comprendre man li ma gëm rek mooy damay ñaan rek ñi nga xam ne ñoom def nañ choix def leen ay def lañ seen liste yi yàlla nañu matee lañ leen tegee foofu te ñu te li mel ni yàpp mooy bu ñu demee bu ñu nekk ay député Ousmane Sonko wala député Diomaye wala député Macky Sall wala député xam nga nañ nekk député du peuple man loolu rek ñu représenter peuple bi foofu loolu rek laay wax quoi d'accord waaw d'accord par rapport ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom euh, dañoo jël te ténor daal leen di teg ci seen coalition bi ku ci mel ni coalition euh, jàmm ak njariñ wala euh, voilà fonk sa kàddu bu ñoom Barthélémy Dias ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci coalition bi yëpp ñu ngi ci liste bi. Mm-hmm. voilà par rapport ak liste Ousmane Sonko bi li may wax demal seen bopp. bien nañ ne ñoom am nañoo benn coalition Pastef moo demee est-ce que du moo demee noonu. d'accord takku wàllu daal euh, jël Ousmane Sonko nii def benn recours dépôt ko conseil constitutionnel euh, ci candidature Ousmane Sonko la ñuy contesté. Ah, xam nga boo seetee ah, li ma la wax si loolu. depuis 1960 ba tey bu kii bu Senghor nekkee fii Abdoulaye Wade di opposé Senghor dem jox ñu Abdou Diouf. opposition bi nekk fi di opposé Abdou Diouf dem Abdoulaye Wade toog opposition bi nekk fi di opposé encore te seen opposé au fait en réalité opposition Sénégal ñoom dañuy opposé rek dañuy opposé ci loo xamante ni pouvoir bi day nekk di wujje ak ñoom ñoom ñu wujje pouvoir bi man gis gisuma. te teguñu ko ci benn intérêt. non c'est-à-dire en réalité dafa bëri li ma bëgg wax rek mooy est-ce que jotul ñu xoolaat seen politique bu Sénégal ñu bàyyi defante bi quoi ñu bàyyi yàqante der bi ñu bàyyi noonoo bi ñu ibbi xol yi ñu jiitu. ibbi seen xol ku nekk ci pouvoir bi nga yaatal lépp ibbi seen xol ñu boolu ñun ñëpp jéem a nekk benn quoi pour l' intérêt de ce peuple là du Sénégal aussi de ce pays là est ce Sénégal warul toll foofu parce que lii boobu léegi ñu ngi koy def au fait ñii porté nañ plainte ñii def na recours fii bu ne fee pouvoir parti pouvoir jàpp na opposition tëj nañ tiw topp nañ kii c'était depuis Senghor Mamadou Dia c'est les mêmes histoires qui se répètent Abdoulaye Wade euh, Idrissa Seck Macky Sall Sonko Sonko je sais pas Barthélémy Dias Bougane c'est-à-dire c'est l'histoire qui se répète au fait mais ñun est jotul ñu toog ñun ñëpp dëkk bi ñu waxtaanee ko quoi tamit. ay recours en en réalité Ousmane Sonko recours bi ko gars yi dugal lan moo tax ñu dugalul ko. nañ ne justice moo ko topp dafa am ay dossier dossier yooyu ni lan moom innocent la si defu si dara xam nañu politique moo tax mu nekk ci dossier yooyu noonu te ñoom ñii di ko porter plainte ñoom xeexle nañu Ousmane Sonko ci dossier yooyu noonu est-ce que tu ko fekk bii. Euh, bureau ay nervi fekk ko fa biir biir bureau fekk ko biir mairie mairie Baobab di ko attaqué est-ce que gis ma la ci biir fu liggéey lañ ko fekk di ko mu riposté bi muy riposté te expert balistique yi nee nañ bal bi nga xam ne moo rey booy Ndiaga Diop ñu ne bal boobu noonu ah ah bal di jaax boobu il paraît que nekk de booy bi dañ ko jox arme boo xam mënu ko manipuler mu gaañ boppam bi mu gaañee boobu hémorragie moo ko rey après expert balistique wax nañ loolu quoi. te ñoom xam nañ ko loolu tey ñu nekk au pouvoir nii jàppale nañ Barthélémy Dias si loolu am ñu moom xeex ci loolu pour Macky Sall bàyyi ko man mii ana naa ak Sonko ak Barthélémy Dias ñu nekk ci oto def cortège di dox Barthélémy Dias di ji justice est-ce que gis nga ñu donc alors da nekk côté bi ànd ak ñoom après suba ñu nekkaat fi xuloo après ñoom li ñu xeex ñoo xam ne lii nii dossier Barthélémy Dias ak Sonko dara du si dëgg yëpp politique la kon ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom kan moo lan tere nekk ay candidat pour dem si législatif yi pourquoi recours pourquoi Sonko di téye fii wala di téye fii est-ce que est yaa ngi gis lecture bi ma lay wax nii en dañu mel ni dañuy fàtte ni peuple sénégalais bi dañu amnésique quoi dañuy jàpp ni peuple sénégal dañu dañu jàpp ni peuple moo tax ñun suñu devoir mooy waxtaan ak ñoom quoi delloo si leen parce que yow mënoo nekk ci pouvoir bi mënoo nekk opposition nga ànd ak gars yi ki am problème nga fekke si ko xam ni politique moo tax keneen ki am problème nga fekke si mais Sonko fekk si na Barthélémy Dias fekk si na Sonko di ko jàppale ci affaire Adji Sarr parce que xam ne ni Sonko violé kenn Sonko fekk na Barthélémy Dias si si affaire u njàgg jur xanaa Barthélémy Dias reyul kenn alors léegi est-ce fi ñu taxaw ñoom ñëpp alors est que jot mais takku kii moo fa nekk euh, Macky Sall Karim Wade ñu jiñ wax sax ni ñoom sax ñoom ñoo tax bëgg def recours pour que loolu ragal Sonko la wala lan en réalité non moom laa wax politique la rek politique la rek moom laa la yàq na Sénégal comprendre nga xam nga ay ay ay ay ay am na ñoo xam ne waruñu woon sax nekk candidat bay naan dañuy. kan moo warul mais loolu si mais mais mais mais wax naa la ko sànq. Macky Sall Macky Sall nekk candidat fii nii yow naan day nekk tëddali su. bay bay bay def mais Adjara nañu waxante dëgg parce que lii de lii de dafa am lu muy wane ci Ousmane Sonko. dina am benn image bu benn part benn côté bu mu wane ci Ousmane Sonko ko te daf koy yàqal. non cest à non non dina wane ni. au fait dafa laaj accompagner. fi nga ko teg ci xel xel toll xelam tollul foofu. Ah. est-ce que comprendre non non Adjara man yàlla rek moo tax may wax ah. Uh-huh. cest xëy na xëy na peut wax ji day diis si yi quoi duñ ko comprendre day diis mais yàlla rek moo tax may wax. fi ko teg ci xel yaakaar ne il est hyper intelligent noonu demeewul noonu parce que bu intelligent Macky ko nax comme xale. la wax sànq. bu bu ma revenir ci li ma doon wax quoi. nga. Mm-hmm. donc donc c'est ça est-ce que jotul ñu teg dëkk bi ñun ñëpp ñu waxtaanee ko. parce que yow jàpp ngeen ne dara changé wul. non lan moo changé mais wax ma lii moo changé sànq maa ngi koy wax kilo ceeb mi ngi woon cent francs léegi mi ngi 600 francs kilo ceeb léegi cent francs lay jar ak tant d'autres yu a ajara yoo xam ne mu ñu fi nekkee di ko wax du jeex c'est-à-dire xamuñu ñun waxuñu. est-ce bi tamit yokku ko di taxal situation bi ñu demee ni déficit budgétaire bi ak yu ni nga politique. Hmm. politique bi nga xam moom la ñu doon xaar. ci ñoom mooy politique boo xam ne rupture totale la moom laa doon wax sànq rupture boo xam ni mooy une révolution xamul une révolution wax naa ko chaque fois mu waxaat ko. mooy ñu fexe ba Sénégal ci biir Sénégal Sénégalais yi dundee Sénégal def consommer local ñu fexe ba li ñuy bay ñun ñu dund ci ñu fexe def consommer local di bay dugub mboq mais dundee cere ñu bàyyi jéggaani bi fexe ba gëm cest à tey ñoom amoon nañ bayre boobu ñoom ñoom amoon nañ possibilité indiwaat Sénégal foofu noonu. mais loolu est-ce que buñ ko def consommer local sol ay yëre Sénégal sol yëre ñëwee Sénégal ah? benn processus processus boo xamante mais dañ ko commencé gul mais dama ko ko noonu projet bi projet bi ñu bi ñu prôné bi tax ñu votel leen je ne fais que me je ne fais que me hmm. wax sànq maa ngi koy wax 2018 ñu ngi wax ñu ngi wax waxi projet waaw 2018 ñu ànd di xeex jëm 2019 ñun ñëpp 2019 malheureusement gagné wuñ élection yi quoi mais projet mi ngi fi woon ñuy wax projet projet projet 2019 yéeguñ ci pouvoir bi de yàlla def demuñu 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ñaata la lu juróomi at yoo koom. 5 ans waaw 5 ans yoo xam projet bi pareegul ba léegi mais ana projet bi.

gaa yaa ngi xaar ba 2017 ba 2024 yaa ngi ci pouvoir yi ba tey projet pareegul projet bi kañ lay pare mais vous savez pas <clears throat> entre temps diggante ba 2024 mais fu ñu nekkoon ñoom ak projet bi. liggéey boobu liggéey projet bi xëy woon foofu. pour adapter ko ak état c'est-à-dire li ñuy non li ñuy ak nit ñi c'est-à-dire ñu xam ne ay nit la ñuy waxal ci c'est des gens qui réfléchissent. comprendre nga c'est que Sénégal instant yi nii par parlo bi dafa dem ba yegg foo xamante ni au fait ñun demeetuñu maayen quoi moo tax ñun suñu rôle bi dafa am solo. il faut ñuy delloosiwaat delloosiwaat xelu nit ñi ñu siwaat quoi xam li ñuy toppee nit ñi lan la dañu ni topp pour ñu wàññi dund gi dañu ni topp pour suñu train de vie train de vie wu état politique Afrique bi dañ. politique bi nga xam muy politique politicienne bi dañ fi politique gu fayantoo politique gu foowee àllu réew mi. politique ku def naka sudul noonu comme ñuy nekk te liste tey ci sàgg seen càggante ñoom heure yi waroon na leen fekk ci kaso bi politique defoon réforme bu yàgg politique tàqaliku bañ ñoom di ko xeex naan Sénégal lépp na boro boro bor ba ñoom ñu ñëw di leb ay bor encore ci ndoddu Sénégal encore. na par ba pare ak kii bi ñu bor yi ñu am ñu ne euh, mi ngi fi. looloo tax ma ne bu fi kenn waxati waxi anti système.